bii mooy savon teint clair bu 300 grammes savon teint clair bu 300 grammes mu ngi jar 3000 francs nga am sa saabu bu ñu liggéeyee ci anam yoo xam ni day defar sa der yànjal ko rafetal ko savon 300 grammes mu ngi jar 3000 francs nga daal di ko mën a am ci cabinet bio Rahma kon yow mi seetaan ak déglu soo bëggee certain mel ni wooteel ci numéro bii di 77 244 98 05 su dee tamit danga ko bëgg en soo ñu woowee ñu jéem a seet nooy def ba nga am ko wooteel ci 77 244 98 05 savon teint clair pot bi 300 grammes la njëg gi toll ci 3000 francs nga daal di ko mën a am ci cabinet bio Rahma ñoo ngi tëggee Sonacos ci wetu pharmacie Asel foofu la ñu nekk tey nag ñu indi woon saabu bi muy savon teint clair 100% bio ak cabinet bio Rahma